Heavyweight.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 Sénégal saytu jàngoroom ba gis ko sàkk ci safara mala yi tamit naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sakk ci safara waaye nag jàngoroy réew mi moom kenn saytu ko ba ci sàkk safara moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax la xew ca yëmbal benn braak doy na waar ab waay buy woo ci turu aadee moo fa jàpp jabaram daa di koy dóor dóor yu metti ñu naan deetawaay mu jël arme blanche dal di xotti ci kanam ga lépp ndax fiirange wëppatalaw nee ñu nag yëf yi mu ngi xewee ca commune bu yëmbal nord te it musiba boobu nee ñu ab sms moo ko indi cay téléphone aade moomu soxna benn brag la dëkk moom muy liggéeyee ca ab santé bu nekk ca Thiès di wàcc par weekend naka nag saa waay saa bu dem kër soxna si naka nag mu koy def di ko def ba benn ba saa dem santé def fa fukki fan ak juróom bi mu tellu see nag comme nam ko doon defee rek delluwaat kër soxna si ca yëmbal benn brak aadee ba mu yeg see mook soxna si ñu nekk ca jàmm laamisoo dara xewul waaye nag saa waay daa xaar ba xaaja guddi jabar gi nelaw mu jël portable am di visiter yaa yërndu nag te ku yërndu gis ci noonu la gisee ab message ci portable jabaram oh caaf xam na message boo xam ni maara dee Italie day wane ni jabar ji mu ngi koy njuy di dem feneen ëskay ade bi mu gisee message boobu ci saa si la taggoog sagom <laughs> firange baaxul mën naa defloo nit lu ne ci la jàppee soxna si taa di koy duma duma yu métti ñu naan detawaay mu jël arme blanche xotti kanam gi bëta law ma waxati ko firange baaxul gannaaw bi aadee defee jëf du ñaaw jooju nag may la def daal di daw après ay bés yu ko doon wër nag ci lañ ko teg loxo aadee nangu ne moo def yëf waaye nag li tax mu def lu ni mel du lenn lu dul fiirange <laughs> waaye fiirange ba nga xotti sa kanamu jabar ma waxaat ko mook droga yem de mën naa defloo nit lu ne li ci gën a doy war nag mooy mbir mi mujjul yegg ca yoon ndax aadee ak jabaram ay mbokk lañu moo taxit magi quartier bi ñoo jóg dajaloo dal di waxtaan def médiation ba mbir mi mujj antuñu teg lépp ci suuf preuve <laughs> léegi kay laaj bi nag mooy wax ji lu ko indi ci penc mi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca mbuur day na waar ab tubaab bu góor buy sëy ak benn sénégalaise di wuyoo ci turu Adé Leerman moo fa accusé doomam ji di dee Alex ak ancien chauffeuram ne ñoo génnee ay vidéo pornom ci mbedd mi <laughs> nga ni ma koy tasaare ci groupe whatsapp <laughs> billaay suñu réew mi yàqu na boobu nag nee na depuis ba mu ñëwee Sénégal ba léegi doomam ji di de Alex jogul ci di def ay pexe ngir yàqu ko <laughs> waaw moom yàq sa bay naka noonu ci lañ sàccee machine ordinateur am jël ay doneem te it nee na mayoon na doomam bi di de Alex machine portable am nekkoon na dindi données yi ci nekk yépp ah yaa ko waroon dindil sa bopp nag waaye tubaab bi nee na doom ji di de Alex daa jël ay données baayam ay vidéo yu bon daa di koy jox ay noonam yi ko gën a bañ <laughs> wili pande sa bay noonu nag la tubaab bi yóbboo mbir yi ci yoon porte plainte doom ji di dee ñaar ñi mu jàpp ne ay noonam lañ ak ancien soforam bii di peesaw teg seen kaw ñaari tuuma muy association de malfaiteurs ak wàllum collecte de données personnelles cay mim réew waaye nag ci kanamu yon doom ji di dee Alex nee na ordinateur bi même bu ci gisoon ay vidéo yi baayam nekkul moom moo koy jël di ko divulguer waaw looloo gën a yenu maanaa nag nee na nag li xew kay lii la nee dañ ko ajouté ci ab groupe whatsapp foofa la gisee ay vidéo porno baayam apatalaw mu ne moo tax li olof njaay wax rek dëgg lu waay di def di laqatu pis bu feeñee mu weeru ay waay bàyyi leen vidéo yu bon yi ngeen di vidéo seen bopp hay nit ku baax day boppam waay waaye léegi àddina bi balaa ñoo gën a mën a vidéo seen bopp rek ne ca moo tax li leen di dal di leen dal rek moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax gannaaw ba réew mi yëngoo nag bali takk ba ay bakkan tëdd ci réew mi ñëpp tiitoon jaxle ne mën na fee jaare dugg ci guuta ba suñu kilifa dinay jóg taxaw yor seen ndox sotti ci safara si ba mu sedd guy ba lépp dal dellu si wat ci jàmm ci laa gi sargennaate ay boyalaat ba mu boy yokk ci xar mi kawar ay way aji daa taxaw ci tefees woyaat woy wi këppoon gaal gi te wolof njaaya ko wax woy wi këpp gaal kenn du ko woy ci tefes waaye bi paa ci waxin aji da cee boole ay sabar junjung riteeki xalam woo taskatu xabaar yi xappatalaw ci kanamu adduna yépp aji remixé waat way wa bi waxatul sax waxi wi yool ak menace de mort waaye lim ci teg nopp ko dégg dalooti ndax aji daf ne dafa ëmb te Ousmane Sonko moo ko ëmbal xappatalaw cay mim réew ay waay suñu réew mi tas na waay ay day xam naa coow lii ñuy li wolof naan mën ngaa xëpp xal mu lakk sa daaga mooy lii <clears throat> am na fu ñu jaaroo nag moom de te gis ngeen fu mu yóbbu woon réew mi <clears throat> du ci yokk dara mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz